tagat yaram wergu yaram autant pour moi wergu yaram jot na dañuy ànd euh, Bintou. bonjour Bintou. nuyu bu baax internet auditeur au 99.4 di leen wax ne nekk yéen ngi ci santé bien-être tey nak ñu waxtaanee rue bu ñuy wax rouge orange nag euh, dina am ci ay saison fi ci Sénégal bëri fi ba bëgg a dee te nekk ak prix boo xam ne ne yomb bu baax a baax bourse yëpp mën na ko jënd maanaam ku am at ku amul bo demee 25 ba kilo wala ñaari kilo wala lépp lo bëgg rek di nga ko am médecin yi nag di digal nek que saay bu amé rek nañ ci lekk bu baax a baax orange nak suñ ko waxé dañu né dafa am vitamine C bu bëri waye tamit ferñeent yi mu am moy potassium magnésium té orange day indi li nga xam rek calcium ci suñu organisme suñu né orange nak ñu né boo lek dañ ci gaaw ndax boko bayé lu yag yag mun na perte lépp lo xam nek moy en vitamine té orange pour tëj Lisa Georgia soko ko jus de fruit boo raxas do son ndax tâche bo xam nek day dem mu santé bien-être di leen jox dig dajé suba ak beneen fruit. D'accord jërëjëf euh, Bintou Lover Bintou qui nous parlait aujourd'hui dans votre rubrique santé de l'orange. Ah, c'est un fruit super méga bon pour la santé et qui comble surtout nos besoins quotidiens recommandés en vitamines. Alors pas seulement en vitamine C, parce qu'il est très riche en potassium, en magnésium, vu que l'orange apporte également du calcium à l'organisme au même titre que le lait. Oui, il a à peu près la même teneur en calcium que euh, un verre de lait. Alors euh, pressée, elle possède la quasi-totalité des qualités nutritives du fruit, mais il faut aussi le consommer rapidement parce que si vous le pressez et que vous le laissez, il risque de perdre euh, rapidement, en fait, il s'oxyde et il perd toute sa teneur en vitamines. Et les taches de jus d'orange partent habituellement hein, assez vite à la lessive. Madame a ben tache, vous euh, que ça vous fait une tache sur votre vêtement. Voilà, c'était euh, aujourd'hui le fruit dans la santé. Merci beaucoup Bintou Lover pour toutes ces informations. On se retrouve toi tout à l'heure pour la découverte. Taïde Fenani, de coup, de coup de Ouest la dame tey defe naa ni Cameroun la dame doxantu de toute façon on n'en est pas encore là on reviendra avec tout à l'heure 7h